ci euh, débat boo xam ni dafa concerné ay fonctionnaires yu mag yoo xam ni dañu am ay cër ci biir administration bi ba pare jox seen bopp sañ-sañu euh, presque génne ay xeetu xibaar yoo xam ni ñu ngi ko jëlee ci cër ak responsabilité yi nga xam ni moom lañ leen dénk alors loolu indi coow ci réew mi ñu bëgg quand am loo xam ni faw ñu leeral ko fonctionnaire moomul boppam réew yépp muy France muy faneen fonctionnaire bu mag dafa am ay cër yuñ ko jox ak ay avantages yuñ ko jox waaye dafa am également loo xam ni dafa tegu ci mbagam lu mu sañ ak lu mu sañul parce que nag suñu waxantee dëgg liberté ak responsabilité ñoo war a ànd droit ak devoir ñoo war a ànd réewu tugal yi nga xam ni ñu bari moom la ñuy def loo royukaay tey képp ku bëgg am liberté wu def politique nu mu la neexe da ngay bàyyi sa métier moom sa bopp président France bi fonctionnaire bu mag la woon mais ba mu bëggee soobu si parti dafa bàyyi dem yore ji partem parce que xam na ni am na cër yoo xam ni ak ànd àndul euh, Sénégal am na exemple maître Babacar ba muy jël ba muy ñibbi si Sénégal inspecteur des impôts et domaines la woon nekk fonctionnaire bu mag nekkoon fonctionnaire France nekk ko fii Sénégal mais ba mu bëggee ñëw ñu créer parti PAI moo ko Mahmoud Diop dafa bàyyi métier fonctionnaire am. dem ubbi abine avocam pour am liberté wu def lu ko neex donc dafa am loo xam ni quand dañ ko war a leeral ci dëkk bi état du lu ñuy téye di ko caaxaane c'est pas possible loolu moo tax aussi ñu bëgg xam ni liberté wu nit ñi ñu ñii kenn du ko waru koo jéggi waaye aussi nag am na responsabilité yoo xam ni soo ko amee dafay am lu muy ànd tegu sa mbagg ak limite soo bëggee loolu tegu sa mbagg nga teggeeku ko da ngay bàyyi responsabilité doxal yi beneen métier alors lii mooy position bi nga xam ni. oui Sénégal ñaari moment la moment yi nga xam ni li li xale yi di wax euh, kiiwu kujje gi làngu kujje gi mooy jamono voté mais su voté jotee ñu campagne réew mi déglu suñu campagne ba pare réew mi tànn ka ko doy wala ja ko doy bu jiital leen léegi nag dañu war a ub tëj campagne bi dem liggéeyi réew noonu lay doxee surtout réew yu mel ni suñu yos nga xam ne dañu war a dabe lu baree bare encore dafa manqué alors li jëm maintenant si kole kuréel bii ñuy war a taxawal muy au conseil collectivité locale bi dafa nekk kuréel gu am solo goo xam ni su yàlla defee ñu taxawal kaak jàmm dana gën a yaatal démocratie ndax day gën a dooleel maire yi di gën a dooleel département yi parce que maire yi ak département yi jox nañu leen ay responsabilité waaye njumtuwaay yi leen war a gunge des na loolu bokk na ci mission bi gën a rëy bu kuréel googu war a def alors loolu moo tax aussi moo ñun ñu ngi lancé appel sunu élu yi président Macky Sall mi nga xam ne moo yilif majorité bi waxtaan na ak waa parti bi yónnee na bataaxal waa parti bi ni leen diisoo leen seen biir mais diisoo leen aussi ak ñi nga xam ne ñoom ngeen bokkal coalition bi pour que gox bu ne ñu tànn fa ña nga xam ni le juboo nañ si ñu jiital leen ñeneen ñi xaar yeneen élection yi ñëw parce que aussi nag ñëpp mënuñu leen defandoo si jamono bi voilà élection député ñëw incha allah. su élection député passé deux mille dix neuf ñu ngi jëmaat si yeneen élection ñun il faut que ñu mën a waxtaan ba juboo ñi nga xam ni ñoom la ñuy jiital ñu jiital leen ñu dem yoon wi ñeneen ñi xaar ba beneen yoon ñu mën leen a mën leen a tànn Thiès nag.